l'intérieur je pense que li ngeen ci indi am na solo waaye li ko fi indi moo ëpp solo parce que li ko fi indi mooy ay mag man ay mag laa wax côté man du ma wax président Macky Sall balaa may wax ci président Macky Sall damay wax ci ñi nga xam ne ñoo am courage dem wuy di dialogue boobu noonu parce que yomb la il faut être un grand homme surtout un homme d'État pour que nga mën a répondre à ce dialogue là parce que boo gisee nit ki rek di ko xoole comme ça adversaire politique adversaire politique euh, euh, jata kii garaawul mais ennemi politique moom moo garaaw e que dafa am ñoo xam ne le président de la république ennemi politique lañ ko jàppee moo tax man pour ma prononcer seen tur sax wala seen turu parti daf may jafe parce que nag man benn responsable laa am il s'appelle le président Macky Sall boo amee haine envers moom mën nga am adversité y a pas de souci ñu def débat d'idées argument yi ñëw je l'ai dit hier à nee na mooy directeur de l'école de leur parti yërëm naa leen la taa Ndeye Satala waxoon ni président Mame Diop sa yan bi diis na waaye moom yërëm naa ko bu fekkee moom moo war a jàngal waa parti boobu nan la ñuy comporter politiquement sérieusement est ce parti non non non non damay wax ni rek li lii feeñ fii dafa fekk ni balaa ñuy dissoudre parti boobu noonu loolu moo ko nekkoon maanaam kooku moo nekkoon seen directeur du parti démb man maa jàkkaarloo moom ak moom seen TV Ndoumbé la émission Ndoumbé la mais mënul lu dul xaste te magum jëmm la nee na moom ak tonton Cheikh Seck def nañ 40 ans kon kooku xam nga yàgg na mais magum jëmm moo xam ni yàggee nga noonu comment tu peux être si un plateau de télé ngay saaga ngay xaste ngay dénigré ngay jéem jaay nit ñi ne leen yaa leen ëpp xam-xam gis nga réew mi ku bëgg bokk ci décision yi da ngay ñëw ci waxtaan bi gàcce ngaa laa ma Sall ngaari président Macky Sall dëgg la fondamentalement wax nga ko léegi nee na président Macky Sall bi ànd ak suuna wax na dëgg te yàgg naa taxaw fi ñu ko wax su Moustapha Ba taxawee fii ñu gërëm ko su la ministre Antoine Diome taxawee fii ñu gërëm ko su le ministre Samba si taxawee ñu gërëm ko kon gàcce ngalaama ki nga xam ne moom mooy am confiance dénk leen loolu noonu kon kooku xàmmee na ràññee na lu baax ba mun a dénk ñu baax ñu kon encore fois dama leen di wax ni yéen ñi nga xam ne yéen bokk taxawu parce que fii nag li fi xew mooy lenn rek bennoo taxaw wallu Sénégal lii mooy parce qu'il est temps non non il est temps suñu bennoowul taxawu wallu Sénégal ñeneen ñooy ñëw réew mi te duñ ko nangu duñu nangu benn xale boo xam ne amoo benn éducation politique man mii nga xam ne doomu Macky Sall rek laa maa leen ëpp fël maa leen ëpp éducation politique duñu nangu benn xale jóge fële ñëw naan da yor réew mi ay magum jëmm ñoo ngi ci def ci état yàgg yàgg yàgg ci état xam ne tam ci état bu fekkee da nga yaakaar ni da ngay xëy benn jour rek leen non yow ci sa trompe lourdement dellu si waat leen sur terre nañu tegaat bal bi au rebond ñu joué waat match bi ñu xoolal ku nekk ñu xam fan lañ lay paas pour que ñu xam fan lañ ko war a dugal en tout cas man am naa mbégte lool te je sais que ni ma ko amee noonu la ko suma président de groupe ainsi que l' ensemble des du groupe euh, Benno Bokk Yaakaar noonu lañ ko amee gis nga président Khalifa Sall muy le président Karim Wade ñoom ñëpp am nañ courage ñëw bokk ci waxtaan boobu kon ñun li nga xam ne moo jógee ci waxtaan boobu dañ koy appliquer fii te dinañ ko voter incha allah rabbi loolu moom nee pas de crainte mais xale yu ndaw yi taxawaalu ci mbedd bi gis nga suñu bokk soo bokkul ci équipe de foot nekkoo ci banc de touche bi remplaçant yi fexe ba jouer match boo bokkul ci onze de yi boo nekkoo ci banc bi mënoo fexe ba bokk ci match bi lu match bokk ci match bi kon maa may terminer rek pour wax ni ki nga xam ni moo nekk ci kaso bi ay doom ay ay militant am nekk fii man yàlla bu ma nekk ñii yàlla bu ma nekk seen leader parce que bu fekkee ñoom rek ki nekk ci kaso bi du génn parce que ñu demuñu dikkuñu xeexuñu xuloowuñu yor seen i téléphone toog ci seen i salon loolu lañ ci nekkee maa ngi gërëm ñëpp bi wa salaamaaleykum